waaye ku ne war naa xam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 góorgóorlu leen góorgóorlu leen bu baax te xam ne yéen a lahum fiina hudan wa xayra wa mina asan wa dayra mel ni kon tey sunu juróomeelu jotaay ci xasida gu tedd gi di matlabu sifaa yi démb ñoo ngi daane ci fu sëriñ bi doon ñaanee ñaan gu amam solo te mooy ñaan na boromam moom sëriñ bi maanaam mu doon koo xam ne day laa biiree mboolem jullit ñi di leen teg ci yoonu njub ak siraatal mustaqim di leen yéenee jàmm di ñaan sunu boroom mu di sott ci kaw seen kaw yërmande waaye bépp loor goo xam ne day bàyyi ko ci moom jëmmi sëriñ bi maanaam na ko yàlla mu na ci yàlla musal mbindeef yi ba nga xam ne bu leen jot ndax mbindeef yi ñoom i neen ñooy lorante seen biir moo tax mu ñaan yàlla na ko wakku foofu mina asan wa dayra wàccal yàlla na nga def loxum ñeel jullit ñi yow yàlla hudan ak njub wa xayra ak yiw fii naa ci ñun maanaam daal ñi leen di laabiré di leen teg ci yoon siraatu mustaqim di leen yéene jàmm di leen ko ñaanal rek waaye wa ko foofu yàlla nga leen fegal asan lor mi naa guy béyee ko ci ñun wa dayra ak ay xat-xat ak i tiis maanaam bépp lor buy béyee ko ci ñun rek maanaam na nga ko fegal jullit ñi ba buum leen lor ndax wax na leen jullit ñi ñoom neen ñooy lorante seen biir waaw asan nag fu ko arab waxee rek mooy loruk làmmañ loruk làmmañ lay nekk dayra nag mooy lor goo xam ne ngàndaay lañ la koy defee ne ci làmmañ lay bee ko te jullit ñi gis nga fu nii lii lii xew na ci jamono ji léegi yemutuñ ci ngàndaay waaye làmmañ rek la ñuy rey nit ki làmmañ foo jaar wax ji rek garam place boo siin rek nit ña toog jàppal na la ñuy wax dara lu am fu la nekkul ca loolu toog ci deru nii rek di ko jëw te loolu yëpp alquran da koo ngañ ndax wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an yaakula lahma axi maytan ma karihtumahu alquran ne ndax kenn ci yéen bëgg na tiim yàpp mbokkam di ko lekk xam nga nit ki nu mu loolu noonu la yàlla nga ngaññi jëw mu ngi mel ni nag jëw noonu rek la mel tiim yàpp jàmbur di ko lekk te xam ngeen ne kenn bëggul tiim morom nitam di ko lekk waaw mu ne wa ko fu moom na nga leen fegal ñoom bindee fi asan lor minaaj bi beekoo ci ñin wa ay eh, xat-xat ay lor tey bu ko defee kon ñu war a sosoot ak yéen incha allahu ak yéen xasidi gi bu sobee suñu borom tabaraka wa taala mbokki kon mel ni kon tey ñoo ngi war a dalee ci waa wa axrinaa bi hubbihim li kaa wàccikaa wa axrihim bi naa fa naslukaa mu ne yow suñu ba tey léegi ci ñaan yooyu lay continuer mu ne waa axrinaa yàlla nga nu xiir yàlla nga nu xiir bi hubbihim ñi bëgg leen ñoom jullit yi maanaam moom jëmmi sëñ bi ci boppam yàlla na ko xiir mu bëgg jullit ñi waaye nag li kaa ngir sa jëmm ji képp yow yàlla ndax mbir mu ne la ci ëpp doole mooy looy def rek def ngeen jëmm yàlla waaye bu fekkee sa bopp nga ci sees wala sa morom bi def nit ki bëgg ko ngir lan li ngeen bokk rek déedéet bul xool lool bëgg ko rek ngir jëm yàlla mi leen sàkk bul xool yi ne bokk ndey ak baay rek tax nga bëgg ko ni nga xamee ne noonu nga bëggee ki nga bokk ndey ak baay noonu nga war a bëggee ñeneen ndax yu bi sallallahu alayhi wasallam nee ne kenn nit ñeen gëmam du mat lu mu mu bëggee boppam mu bëggee ko ñëpp nit ñëpp waaw nu mu bëggee boppam mu bëggee ko way juróom yëpp waaye bëggee ko ay mbokkam yëpp waaw kenn ci yéen gëmam du mat mu ko lurul mu bëgg nit ñëpp lu jafe la nag moo tax ne rek waaye wa axarin ñoom jullit ñi itam yàlla nga leen xiir bi hubbi naa ñu bëgguñu waaw ñu bëgg jullit ñi ngir sa jëmm ji waaye jullit ñoom bëgguñu nga xam ne kon loolu bu waa mooy jàmm ji rek daje na nga xam ne loolu bu amee nag fa nas lu kaa sabab suus ñu sóobu ci sa yoon nga xam ne jullit ñi saa yu nekkee benn rek tegee ci yoonu siraatal mustaqim luñ bëgg rek dañ koy am te luy ñan rek su borom da leen koy defal saa yu nekkee benn waaye fekk ñu ngi ŋaayoo rek di nga xam ne loolu yëpp bu amee rek ak keeti kañaanante ak noonante mbañante yi yëpp te dana ko wax ci kanam loolu day waral mooy duñ mën a jaar ci yoonu yàlla moo tax mag ñi lii rek lañ rawe woon mag ñi fu ne dañoo bëggante waaye ñun ñu topp ci kaw mag ñi nag ñoo nar a ñëw yàq lang lang gi te mag ci ñoom xamante nañ bañ fi nekkee dañoo bëggante woon ñi nga xam ne fekkoon jamono mag nag biñ ñëwee ñoo bëgg dindi loolu waaw noonu yëpp tabarkalla gis nga noonu yi diini yi ni ñu bëree léegi ñi nga xam ne dañoo dañuy mbuboo diini ji te nekkuñ ci loolu yi tax mata bàyyi xel mu ne wa axri naa nu xiir nag nu bi hubbim ñi bëgg jullit ñi li wàcc ka ngi sa jëmu képp wa axrim na nga xiir jullit ñi ñëwit bi hubbi naa ñi bëgg nu nga xam ne fa nas lu kaa sabab soo danu jaar sa yoon mu ne wàccaal jamiha ixwati wa nasabi fii rahmatin yow mastidaadi nasabi mu ne yow suñu wàccaal yàlla na nga def jamiha ixwati mboolem samay bokk wan nasabi ak samay askan fii rahmatin ci sa biit yërmande ji yow mastidaadi ca bi sa tartar ba an nasabi ak coono ga mu ne na nga def mboolem samay mbokk al ixwa nag alquran fu mu ko indi rek mooy ki nga bokk diina la koy tuddee lu demee innamal mu'minuuna ixwa mooy kon bokk pas-pas maanaam ñi nga xam ne dangeen bokk pas-pas gis-gis ci diina xam nga diina yëpp ay bokk lañ maanaam boo gisee nit ñi suñu borom ne inal moom leen ixwa lañ maanaam ay bokk lañ daan ne fa aslihu bayna axwaykum kon nag na ngeen defar diggante bokk gi diggante bokk yi na ngeen di ko defar jullit bu ci ne ñamu dendat ba ñum dentul sax nay jokk bokk googu ndax yonent bi sallallahu alayhi ne ñeent fukki kër sa ganaaw ak ñeent fukki kër sa kanam ak sa ndeyjoor sa càmm yëpp ci ñoom ñëpp say dëkk ndoor lañ da leen jokk jamono ji nekk waaye saa bi bañ ko laajee ana kan moo gën a yee ñi di ko jox mu ne ki nga xam ne moom da ngeen di fiq mooy ki nga xam ne moom yi ne jàkkaarloo même buntu kër kooku moom loo mën a togg rek fas kee ni maanaam jëkkal ko ci ndax àq la ci ndax booy togg dara sax yonent bi dane mu ngi koy xeñ kon xeñ gi ñu koy xeñ noonu àq la ca kon da ko war a yekkal moo tax mu ne ki nga xam ne moom seen buntee jàkkaarloo kooku moom saa yoo toggee yekkal ko tabarkalla moo tax na nga def mboolem suñuy bokk yi bokk ixwati wax naa leen mooy innaha sa aqi gis nga kon ki nga bokk ak diina rek la ñuy wax ixwa nag wa nas bi askan moom mooy ki nga xam ne yéen a bokk benn askan yéen a bokk benn deret waaw ak ku mën a doon mu ne na nga leen dugal ci sa biir yërmande yërmande yàlla nag mooy aljana rek waaw yërmande yàlla moom aljana rek lañ ci xam moo tax mu jël arafu jar wu ñuy wax fii fii mooy ku ñu dugal ci biir mbir te sañ te mënatu mënatu fay génn xam nga Sëñ Tuubaa dafa yémi mu ngi mel ni yow muñ dugal ci ab oto te mënoy génn noo def oto bi fu mu jëm lam lay jural mooy dalay yóbbaale loolu mooy kiiñ dugal ci biir mbir waaw kon nag loolu yëpp dafa ma ta bàyyi xel mu ne wàccaan yàlla nga def ixwati jamiha ixwati mboolem samay mbokk mooy ñi bokk diine yëpp wana si bi ak sama askan mooy ñi bokk gaño ñëpp askan ñëpp na nga leen dugal fii rahmatin ci sa man de nga xam ne mën nga ko tekkee aljana yow mastidaade ci sa bisu tartar ba annasi bi ak coono ba bis ba nga xam ne am na ci ñoo xam ne coono yee tartar yi njàqare yi dana leen toll foo xam ne dañuy mujj sax maanaam seen ñaq wi soppeeku géej ñi lab ca ngir daan njàqare ak i coono képp mu ne bis boobu nag mboolem sooy mbokk xoolal fi ne bàyyut kenn koo xam ni bokkoog naa moom rek ci diini ji waaye mboolem koo xam ne bokkoog naa moom askan rek ñooñu ñëpp ñaan na yàlla mu dugal leen ci biir aljanaam ja ci biir yërmandeem ja nga xam ne fa lañ koy soxlaa te muy ëllëg yomal la leen ko ñaanalee sax mooy bisub tartar ba ak coono yee wacal lanaa hu naa saa xib tasin tafadulan fa nux sax mu ne yow suñu borom wàccaal yàlla na nga def lanaa ñeel nu ñun jullit ñi nang ñu def xunaa fii ci adduna waxan naa ak ëllëg yowmal xiyam nang ñu defal xasaa ak cër boo xam ne saa xib tasin borom ak ñee lañu ci waaye def ko rek tafadulan ci sa mbaax nga xam ne fa nun saa sabab suuf danañu cëru mooy danu danañu laq cër bu duuf te mooy ngërëmal yàlla te mooy li fii te kaw adduna ak alaxa ak gis mu ne nang nu may fii ñun ak ëllëg yemal xiyaam nga xam ne ñaanam day mattale ba léegi ni mu la ko waxee cër boo xam ne ku dul jullit ñi ku dul ñun rek dañ fi ñee te xam ngeen ne rawatina yowmal xiyaam mboolem koo xam ne yéeféer nga gëmuwoon yàlla wala nga koy bokkaale weddi yàlla ak koo mën a doon bu yowmal xiyaamee da nga ñee ña nga xam ne ñooy jullit ñi da nga ñee ñu da nga ñee jullit ñi ba bëgg sax jullit ñi ñiital la ci seen leer ma li ci da am na unsuruna naqata bis mi noorukum xiila arjuhum waraakum waaye loolu rek lañ leen di tont de dem leen ci ut na ngeen wuti ko waaye xam nañ ne foofu loolu yëjji la rek mina lazina amanu jëlaa kon wa isaa morobim yetqamasoon wa isan qalaboo ila ahlihuma in qalaba fakin wa isaar awum qaalu inna hawlaay dalaloon wa ma ursulu alayhim hafsina kon nag fal yawma lazina amanu minal kufaar yalaa koon bëri na ku lay ree waaye bu yowmal xiyaama yaa koy ree de gis nga ak yonent yi fu ñu na tëll ci mbedd yi rek maanaam yéefar ñi di leen ree waaye bu yowmal xiyaama ñoom it fal yawma lazina amanu minal koon ñooy sax dakk di ree yéeféer ñi ndax ñi nga jëm safara ñi seen leen di leen ree di leen yijji di leen ñaawal xaal soo yibal ko faaru maakaanoo yi faaloon yàlla na ndax des na pay pay gu ñaaw gi ñu ne ah ñu wéddi rek ko koy fay de mu ne kon mu ngoog mu ne kon nang ñu def fii cër na ak ëllëg yomal xiyam nag ñu defal xasan cër boo xam ne sax piti borom ak ñee lañ ci mooy ku dul julli rek dañ cee ñee tafadaloon waaye def ko rek waaye du loo xam ne ñu ñoo ko jëf de ndax yàlla wax naa leen kum jëflante moom ci ak mandu teem rek moo tax mu ne def ko def tafadulan ci sa mbaax nga xam ne boo ko defee fa saa sabab sus dañuy cëru mooy dana am ñu am loo xam ne danañu mucc dina xalaxare mu ne waxaat lanaa makaarimul axlaaq mahat tahaabu bi laa ciqaaq waxaat yàlla na may yow yàlla lanaa ñeel ni makaarimal axlaaq yi te dig ndég jukko yi waaye nag mahat tahaabu bi ànd ko bëggante bi laa ci lurut ŋaayoo bi laa ciqaaq ci lurut dëngoo déedéet xoolal gii ñaan na nga nu may tedd ngeeg jukko yi tedd ngeeg jukko mooy ox lu tasul wax nañ ne benn laay rek lañ ko tëkk ci alquran mooy xusil afwa waamur bil urfi wa a'rid anil jaahiliin fu ne lii rek mooy maanaam diggante al makaarimul axlaaq mooy lu sunu borom wax yonent bi ne xusil afwa del jàpp jéggale maanaam lu la waaye mën a def rek afwa ci arab dafa garaaw bokkut ak xafóor sax xam nga xafóor tey xafóor ci boppam nit ki man na laa def dara nga jéggal ko waaye bu la ko defaatee nga fay waaye gis nga afwa mooy koo xam ne loo gis mu def sax lu mu la naqar du la naqari da nga ko koy baax rek loolu wax loolu yàlla wax yonent bi del jàpp ak baale waaye nag bi waamur bil urfi del digle njekk del joxe njekk waaye wa anril anil jaahiliina def na ko maanaam dëddul way réer ñi waaye loolu ba bañ ko koy wax booba laay ji foole nañ ko booba xare wàccagut mooy képp ku lay dog ku la gën a bañ looy séddale njëkkee ko fexeel mu njëkk am gis nga sam noonu boo ko bëggee man maanaam boo ko bëggee man te mu nangul ne yow du hoo morom maanaam xoolee ko ko rek ci baatu xiwal looy joxe maanaam njëkkee ko bu la wóoroon ne tey ñaari ñi ta toog mu wóor na la kii moo la gën a bañ gën lay noone gën lay mere te fu la te fu mu wéere sax maanaam bañ na laa gis looy la demal ba yegg ci moom nga njëkk ko jox ki la gën a bëgg sax maanaam booy joxe yonent bi nee a joxal ki la gën a bañ loolu mooy teddi ngeeg jikko makaar baax la nga xam ne tey yow lu la nit mën a def rek neex na la te ku la mën a bañ ak lu mu la nooneel noonu looy defati ci lu baax rek moom rek nga koy yéene te da nga koy yéene jàmm loolu rek mooy makaarimul axlaaq moo tax makaarimul axlaaq ku ko am doo mer doo xate xol jikko yu bon yëpp dañuy dindi ci yow waaye lu jafe la kon daal ku lay dog ku ne maanaam dee ko jokk ku ku ne looy siit di la fexal mu njëkk am moo tax mu ne waxaat la naa nanga nu may makaarimul axlaaq te dégg nga jukki yi ndax yii bu fekkee dajee na ci ñun léegi nag maataabu bi daga doog a ñëw ànd ko dañuy bëggante bi lu ñëpp dañuy nekk ci jàmm waaw lu ñu bëgg dañ koy am bilaa ci xexe ci ak wutee nga xam ne duñ dëngoo mukk ak i xiiroo ngaaya waaye léegi boo gisee dëngoo gi xiiroo ngaaya yëpp li ko waral mooy ñàkk gi rek ñàkk gi ñàkk makaarimul axlaax ak ñàkk gi ñàkk bëggante léegi nga ne jullit nga sa sa morom mi jullit la nga bañ ko tete ko fen ngir lan dalaa ëpp alal wala mu ëpp la xam-xam wala mu ëpp la garaat rek loolu kay nangul ko ko yàlla ko ko def yàlla mooy def lu ko sob te yàlla kum defal moo xam mu defal la koom wala xam-xam lu mën a doon dala cay nattoo rek te yow mi nga xam ne defalul la ko bu yow boo muñee fii ci aduna muñ googu nga muñ bu yowmal xiyaamee suñu borom dana la yëkkati teg la ci kaw kookee nga xam ne eh, dafa jëloon alal wala xam-xam jox ko ko ci aduna bu yowmal xiyaamee dana la yëkkati ca kawam ba ñëpp di la gis kon nag maxa taa bi ànd ko bi laa ci xaaral suñu lii bu amee rek makaarimul axlaaq taxaa boobu rek moo ci moo ci moo cee topp mu ne waccaal sa xiira naa yu wa xirul kabir waccaal kabira naa yu wen lu sa xir mu ne yow suñu borom wàccaal yàlla nga def sa xiiranaa sunu ndaw ñi gune yëpp ci yem yoo xiru ñuy wet ci mu daari wala feex lu mu daaru ci la ko tëgg maanaam ñuy wet ba faw al kabir sunu mag ñi wàccaal yàlla nga def kabiranaa sunu mag ñi waaw yu xeenu ñuy dimbale ba faw ba tey ci feex lu mu daaru la ko tëgg li sëq ñeel sunu ndaw ñëpp ci yem nag maanaam defal sunu ndaw ñi ndax ndaw dafa war a wek mag fonk ko jox ko ma ndax Sëñ Tuubaa dafa nettali ne ñett rek la ki nga xam ne moom yaa ko mag kooku moom loo war a jëflante moom mooy ñeewantu ndax gune la waaw yërmande nga war a jëflante ak moom ak ñeewantu comme diggante baay ak doom doom ji bu doxee gune ni koy bàyyam da ñeewantoo di ko jëndal yére di ko defal lu ndax xam na ne ku ndaw la ki nga xam ne nag moom yéen a ma yéen ñaar yéen a tolloo même bu fekkee sa tolloo nañ ci ay at waaye nag ci taxawaay yéen a ko tolloo kooku moom def ko comme sa bopp jàppal ne yaa ak moom yéen maanaam yéen a tolloo ki nga xam ne nag mu des koo xam ne moo la mag xëy na muy sa bàyyi wala sa moromu bàyyi wala sa moromu mag yu mel noonu kooku moom na ko wet ñett yi rek sëñ Tuubaa nekk na ci noonu juqadaay nii rek mooy ñett ñi koo xam ne yaa ko féetee mag dee ko yërëm di ko ñeewant ki nga xam ne moom yéen a maase ci taxawaay kooku moom jàppe ko sa bopp ki nga xam nag moo la mag magal gi nu mën a done rek kooku na nga ko wet yonent bi sallallahu alayhi sama xeet du ñu maanaam du ñu dañ mukk di nekk ci jàmm seet ñi ngi ndaw ñi maanaam ñi ngi wet mag ñi waaye mag ñi itam diiram ndaw yi gis nga mu ne feeg lii mu ngi am sama xeet du dëj mukk di nekk ci jàmm waaye feeg lii amul rek duñ dëj mukk di eh, la nga cey déggee mafoom bi mooy duñu dëj mukk di nekk caay yi te fu ne loolu booy xool moo nekk nii rek maanaam fu ne mag ñi yërëmatuñ gune yi waaye gune yi te wekkatuñ mag ñi xoolal fu ne li xew ci jamono yi da ngay gis gune gu ndaw di saaga mag waaye gis mag mu mag maanaam mu wóor na la kii war ko saaga gune mu koy saaga te xam ne ne bu saaga gune gune ko fayeku lu bari fu ne lii moo ko waral boo demee ci prison yi am na ñoo xam ne la dugal mooy saago gune gune ko fayeku ci leen jotee bañ tëj leen ko sax loolu xoolal mbokk yi loolu lu ko gën a rus ko rek sëñ Tuubaa ñaanal na ñëpp nag wàccaal yàlla nga def yàlla sa xiri naa sunu ndaw ñi yu waxiru ñuy wax ba faw alkabir sunu mag ñi wàccaal yàlla nga def kabir naa sunu mag ñëpp yu xeelu ñuy dimbali ba faw li sa xir ñeer sunu ndaw ñi kon ñaan gu am solo buñ ci taxoon mbokk waccal qulubana bila tanaasuhin wala taxaasudi wala taqaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri léegi nag mu ngi ñaanat boromam ba tey di ko ci ñaan yooyu te lépp jullit ñi la koy ñaanal mu ngi sunu borom wàccaal yàlla na def xuluubanaa sunu xol yi ñun jullit ñëpp ñëpp ñëpp ala tawaadu dañuy soppante bëggante bëgg goo ëpp tawadut mooy cofeel gu ëpp maanaam nga xam ne jullit ñi tey dañuy bëggante bëggante goo xam ne kenn ku ci nekk bu amee problème sax sa morom yàkkapte ko koy taxawee ngir la nga bañ koo taxawee yow loolu ba léegi mi ngi am ci réew mi waaye li ëpp ci nit ñi doxalatuñ ko muy mawada muy cofeel goo xam ne sa morom bu amee dara sax ngeen yittewoo ko ko yaa koy njëkkalante taxawee ko waaye léegi jamono ji da ngay gis koo xam ne loolu bu ko bu fekkee sax bëgg na koo def day jàpp bu ko defee loolu day gis boppam day rëy ngir lan xam koy defal gis nga nit booy def xoolal yàlla xoolal yàlla képp waaye boo xool ka ngay defal yow yàlla ngay defal mu ne waccaal yàlla nga def xulóo banaa suñu xol yi xalaat tawaadidi ci ñu bëggante soppante soppante gu ëpp bilaa tanaason ci duru ak xëccoo gis nga bëggante bu fekkee def nga ko te muy dëgg ci yow muy bëggante ko ëpp xëccoo du am mukk moo xam diggante ñaari way jur la moo xam diggante doom ak baay moo xam diggante ab daayira bu fekkee cofeel dëgg mi ngi ci ñoom xëccoo du am ndax alquran dafa am lu mu doon bañal jullit ya ba ñuy dem ca xare ba daf na leen wala tanaason bu leen xëccoo mukk alal yi adduna yi waaye bu leen xëccoo mukk màng bi bu mu leen dara yittal xare leen rek ngir jëm yàlla dàq noonu wala tanaasoo bu leen xëccoo mukk bu ngeen ko defee fa taf solo sabab soo da ngeen échec mooy ku demoon bëggoon jël victoire waaye leen rek moo la ko xeñ mooy li nga sukkandiku ci mbàng mi wala ngir bëgg alal loolu moo tax nga échec nee na nag bu leen xëccoo bu ngeen xëccoo bu fekkee def ngeen ko da ngeen échec te lu ko waral mooy wa tasaabarikum seen kattan dana dem kon nag wasbiro inna laa maa saabiriin lu leen mën a teg ci biir xare bi muñ ne rek ndax yàlla yi waaye nag wala takoonu këllatina bu leen nekk mel ni ñi nga xam ne xarajoo dañuy génnoon min diyaar yi bàyyi ko seen kër yi battaran ngir réylu rek da dem ca xare ba wari a annaas ak ngeen bëgg ku leen gis rek ngeen gis tam nit ñi waaye si doona an sabilillahi te ñuy dëdd wali si yoonu yàlla jaaruñ ci kaw yooyu waaye wallahu bi maa yéxamaloon muhitun yàlla moom lépp la wër yàlla moom wér na lépp kuy xare ngir yàlla xam na ko kuy def ngir yàlla xam na ko kuy bëggante ngir yàlla xam na ko mu ne nag na nga suñu xol yi ñu bëggante ci lu ñuy xëccoo wala taxasudu caag na ñuy kañaanante moo xam xam-xam la yàlla jox sa morom wala alal lu mën a dox nangul ko bu ko kañaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maanaam jullit maanaam dana ñee jullit waaye dane kañaan moom képp ku koy def maanaam day lekk sa xol comme buñ jëlee matt taal ko na ko ngan ji na koy samra si da lekki noonu la kañaan mel ci xolom borom te bu xam ngeen xol bu lekk ko rek day fiñ ci yaram moo tax ñaare ñi ngay gis ñi ñi tàng xol xata xol la ko waral mooy kañaan a ko waral moo tax kañaan moo lakk seen xol yi moo tax mu feeñ ci seen bët yi seen bët yi xonq cur feeñ ci seen yaram yëpp booy buy dox sax da xam ne kii nit ku kañaan la nit kii nit ki baaxu xol la ko wala mooy a kañaan moo nekk seen bit xol loolu mbokk yi du mat a xel la yonent bi nee na nit ki da ko gis ñee ko ñeete mooy lan yonent bi nee na mooy ngi gis sa mbokkam julit mu wër na sa mbokkam julit la mu ëpp la xam-xam wala alal maanaam nga yéene ko xam-xamam ba waaye mbébét am ko waaye nag yéene nga ko bëggoo mu alal ko kooku bi nee na ñee julit dana ko def mbébét am ko waaye nag yéene nga ko bëggoo mu alako kooku yonent bi nee na ñi yàlla julit dana ko def waaye ne nag kañaan ab julit du ko def kañaan mooy nga gis sa mbokkam julit mu wóor na la kii yàllaa ko ko jox yow it nag ngay def pexe ngir bëgg mu ñàkk nga jot ci wala boo mënoon sax mu dee ñàkk alal ji ngir lan da ko ko kañaane loolu moo tudd ak kañaan mbokki loolu mat a bàyyi xel la mu ne wàccal yàlla nga def xulóobu naa suñu xol yi xala tawaadi di ci ñu bëggante bi laa tanaasoon ci lu du ñuy xëccoo wala taasu di caagini kañaanante kañaanante daal wala xëccoo moom suñu yi kon lépp lépp maanaam garab gi mooy xol yi niñ bëggante rek xol yi ñooy bëggante waaye nag bu xol yi bëggantee rek xëccoo du am kañaanat du am waaye fi xol yaa ngi wutee na leen wóor ne xëccoo mëntu jóg fii mukk wala kañaan itam du fi jóg ndax loolu moom yàllaa ko bindaale nit ki mu ne na nga def suñu xol ñu bëggante wala taqaasu du caag na ñu xuloo wante xam nga xuloo sax moom xaw nay woyof ndax nit ki tey da nga moom ngir lan ñàkk waxtaan la wutee la rek xam nga olof day wax ne léeg-léeg nit ki lay waral mu jàppal moromuk jàmm ak ngant maanaam jàppal ko aw mer ci biir xolam la koy waral mooy fekk ñàkk waxtaan la ñaar ñu waxtaanu la gis nga nit ñi bu fi bu fekkoon dañuy waxtaan loolu konoon seen mbir yëpp ay jag waaye ñàkk waxtaan gi lan léeg-léeg nga gis ku mer ak nit waaw une heure de temps maanaam juboo ak moom juboo juboo ak moom léeg-léeg nga gis koo xam ne ñaar ñoo xam ne dañuy doggante ba ëllëg yomal xiyam duñ mos a tuddante loolu am na moo tax walaa taqaasumi du càgg ne ñuy xuloo wante xuloo moom moo ci gën a moo ci gën a sedd nii sax moom ndax nit ki mën ngaa xuloo moom fekk a wutee la rek da ngeen waxtaanu rek waaye bu ngeen waxtaanee rek juboo walaa tadaabaru du càgg ne ñi dëddu wante di wanante gannaaw koo xam ne tey bu ma la séenee sax bu ma la séenee ci yoon yi ngay ñëw maanaam fekkee yaa ma njëkk gis danga may làqutu ngir lan bañ maa gis rek ak bon yonent bi ne ne jullit du def noonu ndukk ku ngeen gis muy def noonu rek kooku seedal leen ko du ab jullit mooy koo xam ne day dogante fu mu gisee mbokkam jullitam yàkkat yàkkamte nay kii lay safaanam nag mooy saa yoo gisee sa mbokkam jullit te jullit te gisul la sax gaaw koy muulu feeñu ko ngir lan nayu ko lu ma tabay xel moo tax walaata daal du càgg nañu gannaaw wante buñ xuloo buñu gannaaw ku gis sa moroom rek maanaam bu fekkee maa la njëkk a gis gaaw na làqatu ngir lam bañ ga gis ma comme maa la a gis rek moom danaa daw làqatu fu ne loolu am na ci jullit am na ñoo xam ne bu ñu gisee seen bokkum jullit dañuy daw wii leen ba ko jàll ñu daw ngir lan bañ nañ koo gis walaata baaxu na càgg ñu ak mbañante walaata naafiru di càgg na ak foñante foñ moom mooy ba teqale ko ba ëllëg yu ma xiyam mooy koo xam da ngay dem mu dem xam nga diggante yiifiir ak jullit loolu moo leen teqale yiifiir ñi dañuy foñ jullit ñi nag dañoo gëm yàlla mooy dañoo nekk seen diina ñoom tuddee na lañ nekk diina la jullit ñoom i nekk seen diina te mooy diina yonent bi salaay salaam loolu mooy ak foñ te ñoom nag kenn mënu leen di waar suñu borom leen wasaadoom nu fooran boo leen waar waar dañuy gën di foñ rek mu mel ni jur goo topp muy daw di dem rek jur goo muy daw di dem rek te xamoo foo ko jàppee xamoo foo ko jëlee mën naa daw moom jur ba tàbbi ci safara wala mu daw ba loru rek noonu rek la mel mu ne walaa tabaaxoon di caagi ne ñuy bañante bañante itam lu mat a bàyyi xel di meronte kon daal na nga def suñu xol yi ñuy bëggante ci luru ak xëccoo wala kañaanante wala ñuy xuloo wala ñuy gannaaw waxante di daggante wala ñuy bañante wala ñuy fañante lii yëpp nag boo defee suñu xol ñi bëggante ba lii yëpp du am mu ne xataa nasira ay waaye waaye waaye sëñ Tuubaa neen xataa nasira yow yàlla lii bu yëpp amee nag xataa nasira ba sabab suus nag danañu mujj dana mujj muslimina jullit ñëpp xaasihin di way ragal la yow yàlla wa muminina di way gëm la muxlisina di way sellal la waaye nag saalihin ñi tegaat ci beneen mbubb mu gën a rafet saalihin a doon ñu baax a baax baax mu ne lii yëpp bu amee kon lépp mu ngi ci xol rek gis nga xol mooy lépp moo tax gis nga bi mu tuddee xol rek defal suñu xol mu bëggante suñu xol bu bëggantee rek ci lay lii da dàqoo muy xëccoo ak kañaanante ak xuloo ak di gënaawante ak di mbañante ak di fañante mu ne lii bu amee rek jullit ñëpp dañ la yàlla xam ne seen xol kenn du ci nekk du yàlla bëggante bi dañuy bëgg rek nga xam ne seen xol luñ ci mbibee rek ci xeeti càkkuteef rek yàlla da koy def mu ne jullit ñëpp ko defee nag danañ la ragal waaye doon ñu gëm la waaye nag boole ci di sellal waaye nag doon ñu baax nga xam ne léegi bokk nañ ci asaalihina te saalihoona yi alquran gis nga buy tagg yonent yi sax danaan wa innahu fi laaxirati la bi ne saalihin gis nga yonent yàlla ibrahima mu nga bokk ci way baax na kon nag moom ibrahima dafa fonkoon boppam waaye fonk yàlla fonkool ko mboolem jaamam loolu moo taxoon suñu borom boole ko ci parti boobu gis nga yusufa innahu min ibadinal mukhlasina moom yusufa mu ngay bokk ci suñu jaam ñi nga xam ne way sellal lañ moom it fu ibrahima jaaroon foofu la jaar foofu la tegoon tànkam moo tax mu ne xataa na ci ba sabab suuf dana dana dana mujj al muslim yi ne jullit ñëpp xaasi ne di woy ragal la wa moomin ne di woy moo la sin di woy sellal la saali doon ñu baax nga xam ne marta bi rek ñoo am al qusuuxo al iman waaye nag al ixlaas waaye nag as saaliya mooy ku baax mu ne wax fir yàlla na nga jégal lanaa ñeel ñun jullit ñi waxaafi naa ta nga jàmmal nu bi xaafiya ci sa jàmm ji te koonu ba ñu nekk fii daareen ci biir ñaari kër yëpp te muy adduna ko alaxira xayira xaafiya ngën ci ngën ci ngën ci sa jàmm maanaam sa jàmm gi ci gën maanaam dag ñu ko defar rek ndax yàlla nag nu jéggal su suñu bàkkar yëpp nag nu ko jéggal waaye nanga nu jàmmal ci sa jàmm ji ndax yàllaay borom jàmm kum jàmmal nga am jàmm mu ne gannaaw boo nu jéggalee ñun bi lu ñëpp te nga jàmmal ñu ci sa jàmm ji mu ne adduna ak alaxira maanaam danañu am ngën ci ak jàmm ndax yàlla kum jàmmal adduna jàmmal alaxira mooy am nga ngën ci mu ne ko wax far yàlla nga jégal naa ñeel ñun jullit ñi wa aafina ta nga jàmmal nu bi aafiya ci sa jàmm ji te koonu ba danoon te koonu ba danañu nekk fii daareen ci biit ñaari kër yi te mooy ko àllaaxira xayra gën ci ak jàmm mu ne wax mi waxut wa ku fanaa an maslama wa najji kulla muslimin wa muslima mu ne wax mi yàlla nga nu aar ñun jullit ñëpp waxut ta nga peeg ñu mooy nga wér ñu nga wër nu ba daj ñu kap bu ñu kenn mën a lor wa ku fanaa ta nga fegal nu xan maslama wulis tooñaange wane ji te yàlla na nga musal yow yàlla kulla muslimin bépp jullit bu góor wa muslima ak bépp jullit bu jigéen mu ne nanga nu xaar xaar mooy wëral la maanaam maanaam sàmm la rek boo dégg xaar mooy sàmm la wuxut nag moo gën a yaatu mooy peeg la wër la ba nga xam ne lenn luy lor du wàcc sa kaw waaye kenn du la mën a lor mu ne nanga nu fegal maanaam ñi ñuy tooñ wala sax ñun ñuy dem di tooñ loolu ñëpp nang na ko fegal waaye na nga musal bépp jullit bu góor ak bu jigéen ku mën a doon rek gis nga ñaan ko ñu mataleen wax mi na nga nu xaar waaye wuxut na nga nu peet ñun jullit ñëpp wukku fa naa ta nga nu fegal ta nga fegal nu an maslama walis tooñaangi bu ñu kenn tooñ waaye bu ñu tooñ kenn waaye wana ji musalal yow yàlla kulla muslimin bépp jullit bu góor muslimi ak bu jigéen kon mbokk yi foofu la ñu war a yem bu ñu del ci waatee mootali xasir gi incha allah wasalaamaaleykum